Cheikh Ahmed Aidara bismillah waaye yow xanaa Sénégal day dañ fee bëgg a daganal góor jigéen maar di daali termine yéene kaay ne en day waaw waaw su faam tànk yi nga xam ne nag maanaam moom lañ taxawee ni la day i liggéeykat day ne i bànqaas ak lu la ONG ba day waaw la mu doon yëngu nag mooy xeex wàllum ndool ak lu ni mel waaye jàppale ne day day kattanal tamit yenn ci ay doomu aadama lu mel ni góor jigéen yeeg yooyee rawatina nag ñi nga xam ne ko dañoo nekk seen i bànqaas fa liggéey waaye am na kenn koo xam ne dafay liggéey day Eliman Abikan waaw daal di nay lànk ndaare ba tëdd ca suuf laa la wax ne ay kilifaam day lanu bëgg ah loolee du ko def day te du ko def ëllëg nag laa la wax ñëw ba tax na ne ñu ngi koy menacé ne danañu ko dàq day ca inspection du travail eh waay Samba Eliman kan yamu ca ci tribune yéene kaay waaw nee na daanaka ñaari a ngi ni lee maa ngi sàkko ak di négocier day ak samay kilifa ca Oxfam waaw ngir jóge fa te libération ñu daal di koy xeex ngir wàñ loxo nag suñu kilifa yi la autorité yi ñu jël nag ay dogal kon ci Oxfam yi la ak yeneen organisation yi mel ni moom laaste en tout cas day sénégalais waaw daal dinañuy songo Oxfam ak doole de yekk ko lu mel ne xamee kay ndaxte organisation britannique bi la dañu koy tuumaal ne dafa bëgg a kàttanal kon wàllum góor jigéen fi la kon ci biir réew mi la tribune yéene de en tout ca waa a mar day waaw nee nañu ñu ngi jàppale kon Eliman Kanté fu mu yem neex Aliou Sané jigéen suñu cosaan diine du suñu jikko moo ñu mayul nag ñuy kàttanal kon góor jigéen kon fii ci Sénégal waaye suul gaz day du ko tere xeeñ barki rasuul lay ubbil tribune yéene nee na waa aar lu ñu bokk day waaw ña nga continuer pression ba rek barki lay ña ngay continuer ba léegi ni ne waaye Mbaye Ndiaye ministre d'État ci réew mi quotidien waaw ma ngay sàkku ci préfet day nee na bu ñu organiser ti kon benn manifestation laa la wax xanaa bi ngeen faloo ba nuppi kon warul woon a joxe kon permis Frank Timis mi lay waru ko woon a joxum ndigal déedéet Mamadou Fall kan bu cos pétrogaz ci la Sénégal waaw nee na négocier waat contrat ci boppam kon moo fi dul am yéeni kaay gi ne en tout cas coowal pétrole boobee a gaz ba waaw Alioune Sall day ay jege ñaale président Macky Sall ay nit ñoo xam ne maanaam dañoo nekk ci APR waaw ñooy financé ay opposant ngir coowal gaz bi lé bu mu fay na tàkk rek Alioune Sall ne waaw Alioune télévision yeeg rajo grand place yi maanaam réew mi yëpp tool pétrole bi la kon la ñuy lii daal xam naa kenn mësu koo gis ci Sénégal de daf ci am ay nit ñoo xam ne samay noonu la ñu jege président Macky Sall 2014 ba léegi nii lée ñu ngi may jéem a daaneel ka doole ka waaye nag damaa amagul seen jot te bu waxtu woo ñëwee danaa leen lijjanti Aliou na te nag nañ jàpp ne président Macky Sall na ma de waaye nag joxuma mairie Géeja waaye ja tool pétrole ak gaz bi ah Alioune Sall day ay jege ñaale Macky Sall ci boppam la tuumaal ne ñooñee ñooy jox xaalis opposant yi la ngir ñu koy attaqué eh, Alioune Sall ne maa ko wax Abdoulaye Khouma day mu wax ci évidence yéen kaay waaw mooy Moustapha Diakhaté ah day war 24 heures yéen kaay ne gis na pétrole ak ba zircon ba ba ca Fossoda ak yeneen sax waaw opération gox di ngeen ko génnee de ngeen wan di ngeen ko génnee de Ousmane Sonko nee na Macky yéenekaay njiital Pastef li nee gis nga feer ba nga xam ne nag maanaam moom la ñuy jëlee ca fale mege ah Macky Sall da koo wanteer waa Turquie wax laa ilaaha illallaah Alioune Tine ci critique yéenekaay nee na gis nga coowal Petro-Tim jëlee ah ab commission lañ war a taxawal enquête indépendante bu moom boppam sur quotidien ne maanaam coowal pétrole ak gaz bi xam ne mi ngi ne xas bañ na fi jugee waaw Alioune Tine day nee na fale ba ñoo waral seen communication bu a ca kaw ga ci yorinu pétrole ak gaz bi lée ñoo ràngati ku ngay ndaxte xoolal ma ca weeru juin 2018 day ca ouverture troisième assemblée générale association des autorités anticorruption ci Afrique waaw Macky Sall lan la fa waxoon ne buñ ca yeggee danañu négocier waat contrat yëpp ressources naturelles yi fii ci Afrique Mamadou Kane Fall bu cos pétrogaz waaw nee na benn négociation du fi amaat eh waay Samba lu yàggul dara ministre de la justice day dane woon laajam du bu kii waxee jaar fii kii wax jaar fee le quotidien yéene kaay ne coowal drogue beeg Petrotim waaw waa forum civil day nee nañ la leer les ko yéene kaay ne en tout cas colonel Abdourahim waaw tey la gën a taxaw day fekk na ah, ay mbiram doy na waar ndaxte ginnaaw bi yow daa continué woon di lëkkaloo ak Hissène Habré le quotidien yéene jabar ja na de jabar ja woon Aminata Diack waaw na man d'accorduma porter sax plainte te jamono joo xam ne ne ngay ca pétrole ba gaz ba jigéenu APR yi ci diwaanu Pikine nga la day ña nga doon rayante de moom daal ba awa ñaa député commencé wax ca jigéen dugg riir ma sànnantey xeer chaise ya naaw dere tuuru am ca ñoo xam ne gaañu gaañu police dugg ca ay ay la la soo da njaay APR waaw nee na li ñu ñu ko te jamono jooja direct info nee na en tout cas koom-koom ak mi ah, doy na waar may sababu nee nguur gi ci boppam ñoo am jafe-jafe xaalis lu tolloo juróom-ñaar fukki junni ci ay gone am baccalauréat dañ leen a sacrifié jël xaalis la def ko fu defuwul junni ci milliards train express régional bi lii mooy lan teew benn université rek quatre-vingt-dix jàpp cent milliards liggéey na ko hôpital du Touba quarante millions termine yéene kaa leen ne bis ni ki day a Orange waaw dootul joxee bonus bonus crédit a jeex na ci réew mi ARTP ci boppam kon moo ko tere la ilaha illallah maa la wax li ba pare Orange day waaw sàkku nañ ca moom nag ab amende boo xam ne daal waaw na muy defee wàllum ku ci concurrence moo jaarul yoon dem naa